nous avons pu euh, procéder à cette prestation de service dans les meilleures conditions. Et cela est dû à l'ouverture et à la transparence dont M. le maire sortant a fait preuve dans le PV qui a été établi, mais également

prenons une pour nous Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses restent à être faites. Nous venons pour continuer le travail qui a été fait. L'administration, par exemple, c'est la continuité. Mais nous venons aussi pour apporter du neuf parce que dans notre programme, nous avions été au-delà d'un programme communal vous propose également un volet territorial. Et dans la réalisation de ce, programme ambitieux, nous compterons sur tous les Guinchorois, tous les Guinchoroises, tous les Casamassés, Casamassés, j'allais dire, au premier desquels M. le maire sortant, qui a, comme je le disais tout à l'heure, vécu une expertise. Euh, et je, le connais suffisamment généreux pour mettre ce, ce vécu, cette expertise-là au service de sa collectivité la Je terminerai simplement par dire que euh, nous lançons un appel à tous les Ziguinchor. Je commencerai d'ailleurs par la commune. Nous ne sommes pas venus pour procéder à des règlements de compte. Personnellement, je n'ai aucun compte avec personne. Je connais personne dans, parmi les personnels qui sont là. Euh, ni parmi le personnel, ni parmi l'équipe. Nous ne sommes pas là pour des règlements de compte quand vous héritez d'une institution, d'une administration, c'est faire un colonel. Mais nous ne sommes pas dans cette logique. Nous travaillerons avec tout le monde. Nous mettrons en contribution tout le monde. Donc, rassurez-vous sur ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les choses avec rigueur, parce que c'est ça qui nous fera avancer. Mais nous ne serons pas dans une dynamique de chasse aux sorcières. Ensuite, nous comptons sur tous les Guinéens et les Je disais tout à l'heure à M. le maire que euh, pour réussir les missions, au regard de la très petite marche laissée au collègue local, il faut que toutes les populations soient concernées par les programmes et les projets et qu'ils s'impliquent. Il ne faut pas qu'on soit dans cette logique de voir un maire comme le qui, d'un seul clic, peut régler les problèmes. Je l'ai dit durant toute la campagne, chaque Ziguinchorois et chaque Ziguinchoroise sera un maire et devra faire, sinon plus, du moins autant que le maire de son concours. C'est en cela seulement que nous pourrons atteindre les résultats que nous cherchons pour notre vie. Donc c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous avons vécu ce moment. Et je souhaite euh, bonne chance au maire sortant. Je souhaite des horizons politiques meilleurs, des horizons professionnels meilleurs et des horizons personnels meilleur et je pense que tout Ziguinchor admettra qu'il a rendu beaucoup de service à la commune de Alors, monsieur le vous permettez, les 100 jours, quels sont les principales bah, Nous reviendrons sur ces questions euh, lors d'un tout prochain point de presse. Euh, il faut d'abord que nous puissions réunir au moins un premier conseil pour leur soumettre. Il ne faut pas que le conseil apprenne ce qu'on veut faire par voie de presse. Ce conseil sera convoqué probablement d'ici la fin de la semaine et ensemble nous discuterons, nous adopterons un certain nombre de choses qui sera euh, présenté aux Iguinchorois par voie de presse d'ailleurs. Donc là, nous avons déjà un tableau de bord, nous avons une idée de ce qu'on veut faire, mais il faudrait le partager d'abord avec ceux qui ont été élus en même temps que nous par les Iguinchorois, le faire valider. À partir de ce moment seulement, nous pourrons vous en parler d'ici la fin de la semaine ou plus tard la semaine prochaine. C'est waaw sant yàlla bu ñu mayee ñu fekk bés bi muy bés bu am solo pour euh, Ziguinchor am solo pour Sénégal am solo pour ñun ñi nga xam ne ñun la concerné directement muy euh, mon grand frère monsieur le maire sortant Ablaye Baldé et moi-même Ousmane Sonko euh, di sant yàlla bi ñu may ñu fekke ko di remercier bu baax monsieur le maire sortant Ablaye Baldé di nuyu it njabootam yëpp jiital ci soxnaam bi nga xam ne madame Baldé ñëw na fekke ci bés bi di wax ni mbir mi def nañ ko ni mu war a demee def nañ ko ci dal ci tey def nañ ko ci ubbeeku ndax passation de service suñ ko suñu toppoon dëgg dëgg dëgg lii yoon mooy ñett la ñoo ko war a fekke mooy ki nga xam ne mooy génn ki nga xam ne mooy dugg ak ki nga xam ne moo war a seede mbir mi muy le superviseur bañ ci waxtaanee ak préfet Dakar dafa préfet Chor dafa wax ni moom gisul benn texte bu ko wax ni moo ko war a superviser loolu mu noonu doon gàllankoor waaye mujj ko doon te li tax def ne ko ko mooy monsieur le maire Abdoulaye Baldé def na li mu war a def def na ko ci transparence xam nga ma ko waxee ci wolof ci euh, def na ko ci ubbeeku mat sëkk euh, li mu waroon def yëpp ci liggéey def na ko li mu waroon bind def na ko ci PV bi bu ñu ñëwee nag tamit li ci manqué woon yëpp dama laaj ko génne na ko collaborateur mi génne nañ ko mu teg ko ci table bi li ma ko ci laaj ci ay question aussi yoo xam ne bëggoon leerlu tontu na ci ci anam yoo xam ne amul lu ñuy nëbb wala lu ñuy denc kon dañuy sant yàlla ni bés bi dañ ca bëggoon am nañ ko te ñu ngi ko am grâce à la collaboration de monsieur le maire Abdoulaye Baldé di ko féliciter ci li mu def ndax fukki at ak ñaar yor na ko dëkk bi te fukki ak ñaar yoyu gëm naa ni li mu mënoon def yépp en tant que nit def na ko pour dëkk bi avancé te it kuy wax ngir yàlla am na fu mu fekkoon dëkk bi am na fu mu ko yóbbu kon di ko ci félicité bu baax a baax di ñaan yàlla mu gën a leeral yoonam ci li ci suñu kanam muy ci wàllu politique muy ci wàllu liggéey muy ci wàllu mbiru boppam yàlla na ko yàlla gën a leeral gën a yaatal di wax nag ni liggéey moom àdduna demee noonu su dee ci wàllu génération génération bu ñëw day def li mu war a def dem bu dee ci wàllu administration dañu ne continuité du service public mooy kenn ku ne da def li nga mën waaye boo fi jógee du tax mbir mi taxaw kon ñun ñëwuñu pour ne li fi nekkoon yëpp dara baaxu ci dañ koy far def leneen ndax wax na ko léegi bëri na ay projet yoo xam ne yu ñu mbébétoon la wala yoo xam ne sax door nañ ko mu ngi fi lu ñuy yeggali la dañuy ñëw loolu ñu fekk ko fi mu nekkoon continuer ko waaye andi lañ ci yokk ñun ci suñu cadre programme yemul rek ci gis-gisu commune waaye dañ ci yokk lu gën a yaatu loo xam ne lu ñu bëgg a jëflante la ak population yi soo demoon xool acte trois sax doo ko fa fekk peut du compétence su commune waaye di nga ko fekk ci yeneen document yu bokkul ak acte trois ñu jàpp ni loolu mooy lu ñu bëgg àndi lu ñu bëgg a yokk ci mbir mi te pour mu nekk il faut que Ziguinchor ak Ziguinchor yëpp jël dugub bi defal leen tur mbir moo xam ne dañ naan rek am nañu président de la république moo war a régler wala am nañu ministre moo war a wala am nañu maire moo war a régler waaye dafa di loo xam ne kenn ku nekk en tant que citoyen moo tax l'implication citoyenne dafa di benn chapitre bu mat ci suñu programme citoyen bu nekk dafa war ak jàpp ni Ousmane ko waruma ëppale ci mbir mi parce que su baaxee ñun ñëpp la baaxal donc gestion collégiale boobu inclusive boobu moom la ñu bëgg andi pour mu am nag ñun ñoo war a njëkk a dem vers les populations ba ñoom ñu xam lan mooy suñu mbébét ndax nit boo xamul foo jëm mënu laa gunge kon loolu def ci am solo ñuy woo Ziguinchor waay Ziguinchor waay yëpp ñu ñëw jàpp ci jiital ci nag monsieur le maire sortant Abdoulaye Baldé ndax am na li ñuy wax expérience am na ci xam-xam am na ci xarañte bi te doomu Ziguinchor la nekk maire ak ñàkk nekk maire doomu Ziguinchor la kon li ma ko wax léegi ne ko bàyyeeguñu la te saa su ma jàppee ni war naa la consulter wala war naa la boole tànk bu ñu génn maa ngi koy tooñ ne ko dañuy defal contrat spécial nga ñëw jàpp ci liggéey bi kon ñu ngi woo Ziguinchor yëpp waa Casamance yëpp pour volet territorial bi parce que li ñu mën a def fii gëm naa ni mënuñu koo def feneen ci Sénégal suñu gëmee suñu bopp jublu ci liggéey bi d'ici quelques mois quelques années dinañ gis changement yoo xam ne euh, ñun sax dañ naan fan la ñu nekkoon boobu ba léegi di daaneel nag ci wax ni dañoo ñëw pour liggéey ñëwuñu pour Eh, di cible ay nit wala dañu ñew pour xex ma sàmb wala ma dem ba dañu ñew pour liggéey téwul nak rigueur bi nga xamné mom la liggéey bi laaj dañ ko ci def ndax ñaar extrême yi benn baaxu ci tok li fi xewon dem ba barki dem cible nit ñi créer dossier ku nekk nga songu ko lolu du avancé lolu day tabel waaye it laisser aller bu ëpp mooy lu waay neex def baaxul day tardel donc di il faut nekk ci li tubaab di wax milieu mooy digg doomu ñu dalal xelu ñëpp ni loolu taxuñoo jóg donte dañu def rigueur ci liggéey bi waaye ñëwuñu pour def la chasse aux sorcières kon loolu daal mooy kàddu yu gàtt ñu ci bëggoon a sànni di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu boole ñu jàppale ñu ñëpp parce que li ñuy def dañ koy def ngir nit population yi def ñu ko ngir suñu bopp. merci beaucoup jërëjëf monsieur le maire Thank you.